nit itam bu la wóoree ne mm. man leen a àgg si xarit de àgg ak morom ma mm. bu mu tax nga jeexal masla seen diggante da mm. ngay xam fooy xem ci ko wan jikko ju rafet ak da ko wan masla bu sell mm-hmm. ndax masla yi dafa am lu muy liggéey ah te ñun gannaaw yéen a wala gannaaw yéen a ngi dend gannaaw mën leen a ñàkk a séq te loolu baax ko nga koy dagg gépp ak dëggit loolu mooy tax bu la wóoree ne man la doon xarit hmm. dema dema dem ba daggoo di ñaaw ba muy daggoo di ñaaw hmm. du ko di jar hmm. waaye na bàyyi fa maslaa hit nag ak da wane jikko ju rafet te moom mooy ñor <laughs> waaw waaw ah ndax li maslaa di liggéey dana ko mën a liggéey wa ida ajasta anil aduwi fa darihi wamsax lahu innal misaaxa wifaaqu nit ki bu la wóoree ne ak xaritoo mën am seen diggante loolu bu la wóoree moom bal yootu ne fa koy def xarit ndax mën da nekk waaye da ngay teral masla seen diggante bëri yoo koy muñal xaddu dafa moom masla yi waxtaan fannaaru bilma illadi huwa didduha tamatin ne baaja watamuha iharaku mu ne safara ak ndox. Mm. ñoo ngi gën hadi. Mm. waaye ñoo war a seq togg ak nit. Mm-hmm. togg ko mën a ñor. Mm-hmm. seetlu la ko baax a baax. Mm. àndale yow mi ci bëgg a togg. soo xarañee seen àndale yéen rek. da nga ci mën a amee ñoom ñu ngi jubóo hadi lool nag. seetlu waaw waaw nit it mën ngeen a bañ a doon xarit. waaye du tee nag ngeen jëriñante. ci lu xam ne mën naa sottee ci maslaa. ah te nit mënul ñàkk soxla ci nit. annaasu linnaasi min badwin wa min hadarin baadun li baadin wa in lam yasmaru qadamu waaw mu ne nit ñi buñ yëgee ak buñ yëgut kenn ku ne surgaab morom ma nga maanaam àddina mooy kër gu xam ne jàppalante lañ ciy nekkee waaw te dee la wax mu ne wa ida ajasta anil aduwi fadaarihi wamsax lahu inna almisaaha wifaaqu fannaaru bilmaa illadi huwa didduha tuqin nidaaja wa tamuha al ihraqu am solo la dégg inna sujaaje buteel ida tanaawalahu bu ko jottale ko alfata waaye anafan ci tatal te saddaa mu tëj sadaa tan tëj boo xam ne lam tur la dégg ko jàng ana loo ci teg wa in ittadaa أقضيت عن هورائه ما للكريم على البداءة من يدي وإن ابتدى بنيا ولا بجفندكو بساعة mooy ñàkk kersa moom nit kooku xam ne xam naa ne mënuñu seet sa xaritoo su ma dawee ba tey waaye moom daal ñaawal rek la mën a doxal sama diggante moom ba mu defee mbaa mu jom nanguwu ko ndax ñaawal gu weesoo ax day tuma duma yu hanawra i ci ñaawam loolale mm. jëfam ju joojale mm. mu jë mu jëmale ci man mm. wala waxam ju joojale mu jëmale ci man duma ko jéem a nekk dafa yoxante ka topp ak moom ndax gannaaw la ko ko taxa man newut ci man ah, la tax moom mu man ko loolu man newut ci man ah damay muñ rek maalil karim ñaalut karim min yedin benn kattan mhm. alal basaati ci ñàkk kersa ci ñaawal dafa am ko noonu ñàkk kersa boo xam ne mhm. ku jom rek moo ko mën mhm. souvent nit ginnaaw yemu leen jom nag ba seet ak moom defante bu la tooñee da rek te na nga xam foo yem ci mbiram xam itam foo ko yemale ci sa mbir rek ñu tegu xam nga ma samli déedéet ولقد حلبت الدهر شطريه وقد درت عليه جميع أصناف السدي فعلمت ما لم تعلمي فعرفت ما لم تعرفي وسمعت ما لم تسمعي وشهدت ما لم تشهدي mu ne ولقد حلبت ratt naa xaritam bi Hind lay waxat ne ko ratt naa ad-dahra jamono sapray yi ñaari wàlli xenaatam man dama nekk nit ku xam ne dama jànkuwanteeg àddina mm. ci neex neex mm. ba nite gu nit war a jëlee ci neex neex ma mm. war ko caa jëlee mooy nit nu mu war a xamee àddina ci neexam rek ak jël ya caa xam rek war naa ko caa xamee ma jànkuwanteeg àddina itam ci ay jafe-jafe ak ay naqari naqari ba nit lu mu war a xamee ci jafe-jafe ak naqari rek war naa ko xam waqad da bëri na soow alayhi ci jamono. jamiu asnaafi suddi mboolem xeeti ween yi dama ratt xenaa ci jamono ñaari wàll yi. te bu ci mën doon ma ratt ci soow mu bëri. may man dama dund ci ay coono ki tumaranke te dund ci dëgg. parce que ma dund ci ay bànneex ak te dund ci ci sababu loolu araftu xam naa maa loo xam ne lam taarifi xamuloo mm-hmm. loolu moo tax man xam naa loo xam ne yow Hind xamoo ko mm-hmm. wa sami'tu ma dégg ma loo xam ne lam tasma'e déggoo ko mm-hmm. ma dégg loo xam ne yow déggoo ko wa shahidtu ma fekke maa loo xam ne lam tashhadi yow fekke wuloo ko subhaana sama ànd ak yow nag dafa war a ci man ma jiitu nga topp ko defee li ma xam ma teg la ci ci yoon mm. ñu bokk ci yoon mm. a dem dem ci njëriñ mm. waaye bu bëgg a tegee ci yow yaay jiitu te xamu la yoon man ma wàcc yoon nga réeral ma dañoo bokk sànq kooku war da nekk <laughs> waaw waaw ana door ñaara dafa am koo xam ne bu ngeen àndee moo sa kaw xam koo xam ne bu ngeen àndee yaa war topp kawam mm. nga dee xàmmee toujours rek mm. soo xàmmee rek heure boo àndeeg nit te xàmmee ga mm. ànd ga dana jur njëriñ sama ànd ak nag dafa laajut ma topp ca kaw sa kaw li mu laaj mooy nga nangul ma ñi bokk tegee ci yoon àgg ci njëriñ soo bañee nag man dooma teew ci yoon dana fa fa fa fa araftu ma xam ma lu xam ne lam taarifi yow xamuloo ko wa sami'tu ma dégg maa loo xam ne lam tasma'ee yow déggoo ko. wa shahidtu ma fekke maa loo xam ne lam tashhadi fekke wuloo ko. baax na boobu. wa alimtu nazma samli. azza manaluhu. illa bi samlin. fil biladi mubaddadi. mu ne wa alimtu xam naa. nadma sëmli dajale mboolo hatta jëfeñ na manaaluhoo xamam illaa bi sëmlin ndare ci mboolo mu baddadin ma di muñu tasaare fil biladi ci dëkk yi mu ne soo amoon mbooloo mu tasaaroo ci dëkk yi nga fexe bañ daje soo bëgg a dajaleel keneen mbooloo mi du sotti ndax dajale wu la woon sa mbooloo ma xam nu ñu war a defaree mbooloo mooy xam na ne hen ka koy henu rafetal ko mooy ko toppatoo woon dimbam ba tey teg ki xattan hen ne ci moom comme mooy ki henu de jagal subaana moom xam na ne dimbi ëllëg ci la ne il faut mu pareel ëllëg xamuñu la ko waxee de mu ne xam na ne hen ka koy henu de ko rafetal ka toppatoo woon dimbam lay dox mm-hmm. ba tey jii mu xam teg ci xattan hen mm-hmm. te moom xam na ne ci dimbi ëllëg la nekk mm-hmm. mooy tax kenn du ko tee préparé ëllëgam su xam naa nas ma somli noose mboolo asa jëfeñ ma naa lu hoo xamam illaa bi somli ndare ci mboolo mu baddadin ma di muñ tasaare fil bilaadi ci dëkk yi wal lam yukhal bi nawmin hadiin mhm. illa bi nawmin qablahu lam yahtadi mhm. wal jafnu mbatam bët mhm. lam yukhal tungaleesu ko bi nawmin ci nelaw hadiin yu de way dal illa bi nawmin ndare ci nelaw qablahu ca njëkkam lam yahtadi yooyu daluñu mu ne bala ngaa xam nelaw yoo dal ñàkkatala nelaw dafay xam mooy noflay bu ànd ak tedanga comme coono bu am njëriñ a koy jiitu mm-hmm. waaw bala nga bi xelloog yow mm-hmm. da ngay sonn ca la nga war a sonn mm-hmm. te xamee ko noonu bu baax a baax nit tedanga bi xelloog moom dafa war di wutee ci sonn ci li mu war a sonn wal jëf nu mbatam bët lam yu xal tur nga leesu ko bi naw min ci nelaw haadi in yu da wéy dal illaa bi naw mi ci nelaw qablahu ca njëkkam mhm. lam yahtadi yooyu daluñu mhm. wal baynu mhm. izzun lil fata wa makanatun yawmal ma'abi wa hudwatun lam tuhadi wal baynu tàggaloo mooy génn sa kër ndeg wuti njëriñ ak njëriñ looy mën a wuti en sun tebbe nga la lil fata ñaal waaye yamal ma abi ca bisab ba mu ne ñib si indi njëriñ si gi gëjane ca bisab ñib si ba su doon moom rekk sax jar na jëm ndi njëriñ yow géntu nga jàngi góorgóorlu nga baamu xam-xam nga daal di ñib si bisum ñib si bi ñu ne yow yaay kii di ko andi fi xam-xam siggi googu ci bis boobu rek tuuti mu jar jàngi wala gis nga ne koo war a xaji nga nga daal di génn dem xaji te tudoo say manasik baax bi nga daal di ñib si bis bi nga jib see ñëpp da la xoole ne kii mooy ki jogoon ndeg yàlla rek ak diinaam ba toppatoo na ponk lislaamam siggi googu rek dëgg mm. kon mu jar ko mm. ak yeneen ak yeneen te loolu bokk la tiyaabo bi ca xam-xam ba dara mm-hmm. mm-hmm. waaw mel ni koo xeeb rek mm-hmm. daanaka jar na léeg-léeg nga génn mel ni koo xeeb rek daanaka jar na léeg-léeg nga génn wal baynu tàggaloo makaanatun daraja la lil fataa ñaal waaye wal ma abi ca bisab dellu wal bay du tàggaloo xudwatun xejju la mm-hmm. lam tuhat gog mene suko lil mm-hmm. fata ñaal waa yomal ma abi ci bis ak dellu mm-hmm. mu ne saa soo demee saa soo demee ab diit boo dikkee koo xees ngay dox su ko defee soo indi xaale loo jar faddu nag saa am solo de wal bay nu tàggaloo ay sun tedd nga la min fataay ñaal waay mm. yawmal ma'aadi ca bis ab dellu mm. wa udwatan tey xejju mm. lam tuaat gog mene suko wala ayadu dango jël waay xam na fi -hmm. wala ayadu law ammal layaaliya maxtada wal xaymu law lam yasxu lam yutafaqqadi -hmm. ah seen sotra bi fara na ko -hmm. waaye borom yax bi moo ko bindaale wut mu ne wala ayadu xeet law xam ma su ma taleexoon allah yàlla ya guddi yi maxtaba du xej yi mu ne bisu xeet li ko may daraja bi mooy lim du dig bu seen la rek ah dafay fàddu bañ na mu ko su dikk loolu moo tax buy jublu suñu de ko waajal di buñ la kon ke xeet moog bis ko jiitoo yi ko topp ñooy xam waaw si doom su ne mu ngi fenn ci dara ko kay wax dëgg yàlla renam du tane daawam de déedéet renam du tane daawam de déedéet moo tax nit dafay góorgóorlu ci lu fekkim nekk waaw moo koy jëlee ci jógee fii romb ko tollu fële bu ca kanam mu romb ko tollu fële moom moom mu àgg fi mu war a àgg wala nga demee la ma am ma su ma tollee woon martaba du xejju lu jublu si ñi ko waajal lu yàgg mu xas si ñu si kontaan trop muy ñi ko waxtaanee waaw loolu am na ci besoin bu nekk wal xëy mu niir loolam yafu mm-hmm. bu duloon lu muy wuri lañu topp a pat dégg ko génn dégg ko fil mm-hmm. bu fekkoon heure bu mu ngi fi mm-hmm. du ko séntu de mm-hmm. bu fekkoon heure bu ne mu ngi fi ah du am daraja ñuy ko noonu rek heure bu ne rek dafay fexe fi mu toll ci teg ah morom bu ko rek jëm fu ko morom bu ko jëm fu ko kawe ci loolu lay naw ci loolu lay mën a doyee ci loolu lay mën a jëriñee ñi nga xam ne ñoom la war a jëriñ ci loolu lay mën a teetee ñi nga xam ne ñoom la war a teetee ba mu àgg rek léegi tegu wal nisu fi darakil maali wal moda yo dem ne irqalil matayal xuffati jàng lool mu ne wal nusu fajug haajo wal nusu fajug haajo fi darakil maali ci jot kawe yi wal muna ak nubadi fi dimmi irqaalil mataaya hmm. nekk na ci biir gaaw ak waru way hmm. alxuffa di yede way gaaw hmm. mu ne teraanga gi ak tekki gi xam ne bari mu ngi tànki gëlëm yi mooy ndam dañ ko wute ci sonn ci li ñu war a sonn mooy mooy li mu bëgg a wax ndam li ci li nga war a sonn awa musattatil azamati laa yaswi ilaa sakanin wala ahlin wala jirani mu ne boromi dogu la te yim bëgg dañoo rëy moo tax talut wéttale ko soxna talut wéttale ko ay ñeñ talut wéttale ko ay dëkkandoo bëgg-bëggam moo koy buurloo da ko doxloo alifan nawa xatta ka anna raxilahu lil bayni rexlatuhu ilal awtaani mooy nit na góorgóorlu ba mm. moom mu ngee jot di wuti kawe xam ne ko kooku mu ngee jot da dem seen dëkk mm-hmm. kii ñaare kii ñibbi day ñibbi day day kontaan ci ni muy ñibbi mm-hmm. te am na lim mu bëggoon waaye mu ne moom ca wartandeem ci dem di wuti la mu bëggoon mm-hmm. luñ ko rek xaajale ah, eh, daanaka moo eh, kenn mënu ko xàmme ak ak ak am na li mu bëggoon mu ngi alifan na waa hatta ka anna rahilahu lil bayni rihlatuhu ila al awtani kon ñu jàng lool wan nusu fajug haajo fi darakil maali ci jóg kawe yi wal muna ak mébét yi fi dimni irqalil mataya nekk na ci biir gaaw ak waruwaay yi alxufa diya dewey gaaw min kulli musnafatin labani simillatin wajna naajiyatin xamoo nin mixadi min kulli musnafati labaan ci bépp gëlëm guñu takk dënnam si millatin gudaaji gaaw wajina gudaaji tal ji nenkateng naajiyatin gudaaji gaaw amoo nin gay hóolu a koon pakkatalu mixadin gay gaaw a koon dina bu baax a baax fokk nga yebal sa gëlëm defal ko sanaab mooy takk ay yéreem gëlëm da nga ko yebal ba mu suur soo ko bëggee de tukkee de wuute kowe bu suuree ba nga xoolu kattanam fekk tàggat nga ko ba mokk nga daggal ko yére yoo em ak moom war nag di dem sooy dem ak moom biir bu yàgg yàgg yàgg nag mm. noppaloo ko mm. lekkam demee wut noonu naanam demee wut noonu mm. jëmm ji day bàcc su jëmm ji bàccee nag yére yéen ko defaloon da koy rémbu subaana da nga koy takkaat toxim ak moom nga dellu ko waraat de wéy mm-hmm. takkaat boobu ngay takkaat yére yi dem bërémbu mm-hmm. ndax mën a nga mën a continuer da ci waree gëlëm gi mm-hmm. mooy salaaf fokk si nga am gëlëm bu baax waaj waajaay bu xemb doxee ko ba mu bàcc ba nga min kulli mos na fati labaan ci bépp gëlëm gu ñu takk dënnam si millatin gudaaji gaaw wasi najiyatin guraaji gaaw amunin gay hulu akon sakkatalu me kadin gay gaaw akon naadiratay taridin faridin watasifu laaqibatan najaa xafaydadi tarno dana mujjaa bi naadiratay taridin ci ñaari bëti nagu njaal wuñ dak faridin guraaji weet nekk gëlëm gu sawar ku xam ne bu taxawee ni mooy neex a dafa mel ni nagu njaaxal bu beddee ku barab ni mooy neex a dàqee si fu te dana mu gaaw laaxi batan mbir moom mu daa ci sonn najaa xafay da din kem gaaw ak gaaw nga xam ne bu tolloo ci coono ba wàññi xel nekk ci dawam bu gën suufe dafay mel ni baagu de rong karno dana mu jaaxe bi naadira tay tari din ci ñaari bëti nagu njaal wuñ daqe fari din wudaaji wéet buy xool dafay mel ni nagu njaal woo xam ne dañ ko daqe mu daw ba sori nag taxaw beddee di déglu li muy neex a daqee kon gi li muy neex a burloo ate kon gilem gi dafa faraw wata suppu dana mu gaaw tasippu laaxibatan mbirum muraaji sonn lu xóob mooy coono na jaa xafay danin kem gaaw ga ji gaaw wa ka anna hadiya hababun sajimun fi rawdi aw mahsuusu xusnin axdadi wa ka anna hadiya daanaka seeni dox wala doxam hababun puurit la sajimun muraaji yol fi rawdi ci dër aw ma suusu xusnin wala lu ñu gësami bànqaas mm-hmm. ax dadi budaaji naat mm-hmm. mu nekk gëlëm goo xam ne buy daw ni muy ñàkkee yëngatu mm-hmm. dafa mel ni ndox muy yol di dem gaaw lool te doo am benn yëngatu boo xoolee dox gi ni mu ko yaanee dafa mel ni bànqaasu garab bu naat boobu ngelaw li da ko yaan ni muy yëkkati goo ko jóg wa kaan na haadiyaha daanaka doxam wala seeni doq xabaabun puurit la saajimun mu daaji yol fi rawdi ci dër aw mahsuusu xusnin wala lu ñu gësami banqaas wala banqaas bu ñu gësam axdadi bu daaji naat wa kaanna kalkala sudooru baniyatin masmukatin naxwa samaai bi xarmadi wa kaanna kalkala daanaka seeni dënn ñoom gëlëm yooyu su dooru baniyatin danne ay tabax lañ mas moo katin yada yuñ yëkkatee bi xarmadin ci xarmat nax wa sama yi jëm ci wàlli kaw ñu nag yoo xam ne boo ci xool dënn bi ni mu siggee ak ni mu yaatoo ndax am taxaw ak gëlëm yi seen tonkale dafa mel ni ak tabax guñ guñ lémb ba mu xawee wa kaan na kalkalaha daanaka seeni dënn su dooru ba niyatin benn ay tabax lañ mas moo katin yëre yu njëkkatee bi xarmatin ci xarmat naxwa sama yi jëm ci wàllu kaw mu di tegu tamtoo danañu yootoo bi sànge di mux misin ci xasa buy aji jël juróomi fan na il mahallati ku daa ji sori ci barab tamtoo danañu gaawee danañu gaawee bi saayati muxmisin mm. ci kem kasa buy sàmm bu jël juróomi fan fii mm. hajmatin kay borom hajma mm. mooy gettu go dem ci ñeent fukk gëlëm jëm kaw na il mahallati kudaaji sori ci barab mati hin kudaaji wëgg mu tajarridin kudaaji raflewu mu ne ko ji gis buy wëgg nan maanaam gëlëm bu ñuy bu ñuy cal bu ñuy daw seen tànk yi ni muy baree dafay mel ni sàmm boo dem ci nandalukaay mm. yore ñeent fukki gëlëm jëm kaw mm. boo bu sori te yàkkamti lool mm. mu wóor ne lu bari ci ndox la soxla mu futtee ko cawatande googu bay wëgg li loxoom yi bare mu askanantoo gëlëm gi buy daw li tànki kanam yi bare tamtoo dana mu gaaw bi saa di muxmisin ci xasa buy sàmm bu jël juróomi fan fi hajmatin kay borom hajma hmm. mooy gettu goo ci ñeent fukki gëlëm jëm kaw hmm. na il mahallati kudaaji sori ci barab hmm. mati in kudaaji wëgg te jërëj in kudaaji rab lew anafuha fi laahibin raahun nawaihi aw lawaihu majladi wa ka annama axfaaquha daanaka seen ndafa ñoom gëlëm yi fii laahibin ci xàll mooy gëlëm yooyu bu ñuy daw ci xàll wu yaatu ba nga dégg seen i tànk de dal dal bi ni muy xiiree ak ni muy baree raaxun nawaa'ihi ay ténk ñuy déjjantu lañ dafa mel ni jigéen ñoo am dëj bay def ni yaaxa bay fox seen tox yu bari yu xiir yooyu na loxo yaay xiiree ak na mooy bare moo askanantoog dalak tànki gëléem yi ci xàll woowu ni muy xiiree ak ni muy bare wa ka annama axfaafuha daanaka seeni ndëfañ si lahibin ci xàll raaxun na waa i ay ténqi way dëjjantu lañ aw la waa i xaw majladin wala ay lay xay der way feeñi der bal maa u yuksa birrukudi kuduratan wa yuruqu rawnaquhu ida lam yarkudi wal badru law lam yantaqil lam yastanir wa tiflu law lam yanmu lam yastarsidi wa suuku law labisat bin amanin lama fasafat bi aqsal garbi saxra munahadi ndax du munahati lu ci tegu wala istaqarra durru fi asdaafihi maa xalla xalman wala maa xalla xaliyan lil xasaalil asyadi ñu jàng loolu maanaam nit góorgóorlu ci yokkuteem num hitteelee ci lay indi misaal te da ko ci tukki li ko def mooy seen tukki la géy la woon du dox nii rek la ñuy santaane waane yëngatu ci lu sa yokkute nekk rek mooy xaaya mooy dayo mooy soxla bi mu ne palmar u u ndox te yukk saa def na ko xoodee bi rukkoo di ci dal ku door a ndox bu taxawee yolu defu dara bu yàggee day soppee ko am xej gu naqadi xam itam cafka forox gannaaw yolut noonu lay def wa yaruuqu dana yéeme raw na ko taaram idaa lam yarkud ndegam dalut waaye feeg mu ngi yol nag nga gis ko muy lu sell feeg mu ngi yol rek nga gis ko muy lu dal xel nit itam noonu la su fekkee dafa toog yëngatuwut ci dara da ngay gis rek man rek ay perdal feeñ ci moom ndax pertal gim pertal waaye seen nga ne mu ngi yëngatu ci ko jëriñ rek bi bu set day ni ku xeese bi bu set day mel ni ku xeese ndax bi bu set moo àgg fu nga àggu doon alaysa min al xusraani anna layaliyan tamurru bila nafain wa tuxsabu min umri ah kat ko bu baax mu ne seetal lii ci limite limite biñ ma joxoon ne ci lay dund ci lañ ko génne ñàkk naa ko te xaw ma ci dara loolu perte la waa ji yow li ñu koy war a dund dañ ko limité seconde bu wéer rek ci lay génn seconde bu wéer rek ci lay génn lii nag génn nañ ko ci li nga joxoon pour nga liggéey ci lu am njëriñ te liggéeyoo ci dara loolu moom de perte la ah alaysa min al xusraani anna layaaliyan tamurru bila nafain wa tuxsabu min omri ah ah kañ ci di wax na dëgg di alaysa min al xusraani anna layaaliyan tamurru bila nafin wa tuxsabu min umri ah loolu moo tax nit heure bu ne dafa war di góorgóorlu ci lu yokkuteem nekk da jéem di xam dara dara wala da jéem de man li mu war a man wala da jéem de xam li war a xam waaw waaye bàyyi jamono mu nii rek kooku rek rëccu rek rëccu rek ndax pertement la te perte boo ko defee ker buñ xaagee fa bénéfice waroon a amee rek métti lu mooy am waaw min al xusraani an na layaliyan tamurru bila nafain wa tuxsabu min omri falma u ndox yukku saa na ko xoodee bi rukkoodi ci dal ku dóora tan nëkk ndox bu taxawee yolu demut fenn bu yàggee day soppeeku di xam melokaan wu doy waar ak caf ko gu doy waar ay salte du ko dugg wayaroo ko dana yéeme raw na ko taaram ci daalam yar kut bu dalut waaye fig mu ngi yol nag xel bu ne sell rek nga day gis ak dal xel rek nga day gis ak rafet rek nga day gis nit itam noonu la bu yàggee ci neenal rek dafay doon ko kardal lu bëri waaye fig mu ngi góorgóorlu nag léppam rek day doon njëriñ bu ci tegu wattil wal badru weer wi loola mi yeltaqil bu du doon li muy toxalu ah la fekk nit du leer weer wi su fekkoon ni muy yem rek ci yow mul hilaali rek noonu rek lay yem foofu rek lay nekk lu mos a leeral guddi ba guddi jeex waaye gis nga ne nag fi nga koy gis ci bi ñu wax ne tey la weer wi teru bu ëllëg saa feneen nga koy gis muy bu gën a koowee fam ne nga gis nga gis mu ànd yokkute nga gis mu ànd ak gën fee mën a yàgg gën a mën a leeral bu ëllëg sax nga gis ko fu kowe ànd ak beneen yokkute bu gannaaw ëllëg sax nga gis ko gën a kowe ànd ak beneen yokkute ba ba nga koy gisee muy lu mat a leeral guddi ba guddi jeex nit nag noonu lay def tër bu ne rek dafa yokk ci kowe da yokk ci kowe ba keroog muy doon ki mu war a doon taxawal li mu war a taxawal jëriñ li mu jëriñ wal badru weer wi law lam yentaqil bu duuloon li muy toxalu ah la nga tamit du leer wa tiflu gune law lam yan mu bu duuloon li muy màgg bu màggu doon lam yastarfit du gindeeku su fekkoon nit li muy xem ci bisab juddum bi ci ñàkk a man ci ñàkk a xam dara ti noonu rek yamul wilaate ti noonu rek noonu rek la ci ñàkk gaa xam dara ak ñàkk gaa man dara ak ñàkk gaa xam dara su fekkoon noonu rek la diiru dund bi ak lu mu yàgg yàgg kon de jëriñ fi dara du am déedéet kon dund ba jëriñ du am waaw waaye nag melokaan woowu ci lay génn da gën di jëm ci xam dara ak man dara ak xam dara ba keroog muy xam li nga xam ne bu ko xamee jëriñee ba keroog muy xam li nga xam ne bu ko xamee jëriñee ba keroog muy man li nga xam ne bu ko mënee jëriñi loolu moo lay xamal ne àddina kër ak jéem la kër ak góorgóorlu la kër ak wut a yokku la watib lu gune law lam yan moo bu duloon li muy màgg lam ya tarsit du gindeeku wasoo ko ay soccu mooy banti araak hmm. law la bisat buñ saxoon hmm. li naamaanin ci naamaan hmm. aw kurla lama rasafat duñu ñeeri bi aqsal xarbi ci fa gën a sori ci xarbu saxra munahadin jongama ji yëkkate ku ween al araak garab la boo xam ne dañ ko taamu pour de ko soccoo su ko defee ñu ngi koy jëlee ci xur wu ñuy wax naamaan moom la soxla siwaak socc arak socc waaye naan la uhibbu siwaaka min ajli anni in dakartu siwaaka qultu siwaaka mu ne man socc su ma koy tudd du may nangoo wax siwaak ndax siwaak dafa ni doon siwaaka ku dul yow bal uhibbul araka min ajli anni in dakartul araka qultu araka man kay dama naan arak ndax arak dafa ni doog araka maa ngi lay gis man kay dama arak ndax arak dafa ni doog araka maa ngi lay ne nag banti sax ci yooyu ñii jëlee ci arak fam nekk darajaay mat rek la fa amee ah dafay nekk rek bu ko defee bu day gi ko mu jeex su jogut loolu rek moo ko fay fekk waaye moo ko may jongama ji toll ci digg taaram da ko tàmmu ci siiñam ay bant la yu di ko yóbbu ci ay réew di ko jaay prix yu mooy moo may loolu wasoo ko ay soccu law la bi sat buñ saxoon bi naamaanin ci naamaan lamaara safat duñu ñeeri bi àqasal xar bi ca fa gën a sori ci xar bu soxra mun a haddin rek waaye jongama ji yëkkateeku ween dafa am yoo ne dafa am yoo xam ne mm-hmm. ah, mm-hmm. ah, boo sàgganee ci sa bopp mm-hmm. doo ko am mukk ah, nit am na loo xam ne góorgóorlu rek mooy tax mu am ko telu ko baax a baax a baax ndax dafa am xéwal yoo ne dafay am lu ñooy àndat loolu nag boo sabab lu doo am gis nga ko baax a baax a baax tey ci misaal yow boo portable kenn du la mos a may crédit de loo ko defee loolu la ñuy wax kenn du la ko jox dañuy jàpp ne amuloo ci soxla oto kenn ay loo ko defee dañoo jàpp ne amuloo ci soxla seetloo ko yow boo jéemul a tabax kenn du xalaat jox la tonne ciment dañoo jàpp mooy amuloo ci soxla seetloo la ko baax a baax a baax ah dafa am xéwal yoo xam lu muy àndat seetlu baax a baax a baax la koy ànd nag boo ci góorgóorlu wut yooyu doo ko xam seetlu baax a loolu mooy tax nit dafay jéem a réaliser dara su ko defee nag ndimbali ànd ak góorgóorlu ga man koo dikkal waaw seetlu baax a baax yow boo jëmbalul ne bëgg nga xam-xam kenn du xalaat dimbali la ci téere kenn du ko xalaat lu caa xalaat amuloo ci soxla seetloo ko waaw yow boo demee ba toll ci kër ji mu la xamee kër hmm. ah, kenn du xalaat jox la saako ceeb ngir yàlla amuloo ci soxla kenn du xalaat may la saako dugub amuloo ci soxla hmm. noonu la demee rek waaw ah, am na yoo xam ne ku góorgóorlu wut du ko am waaw hmm. ah, waaw ndax nit ñi nag li leen àddina wan ci nit ki rek dañoo jàppe nit ki mu jeex waaw te aada moom yàlla ko fi def seetloo ko baax a baax a baax boo buuree da nga koo xëppil nag bu ko neexee mu bàyyi la sa bopp rek waaw la moo tax nit dafa di góorgóorlu bu baax loolu la addina laaj loolu la addina laaj waaw te loolu misaal yi ma la jox ah, ah te moom yàlla ko fi def waaw moo ñu moom buñ ne nag koy xëtt nag foo ne nag suñ mbir day doxee ci xar baax yëllu mooy am rek waaw ah, nit dafay góorgóorlu Seexu na Tijaan yi mu ne rahmatullahi taltamisu ah, ku yërëme la waaye léeg-léeg yërmande jooju boo ci soxlaa nag dangay seet buntu ba mu la négloo nga nekk ko waaw inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin hmm. kon yërmande yàlla jege na ñiy def rafetal xam hmm. nga dafa ne yaxtasu bi rahmatihi man yasha hmm. yërmande ku ko neex la ko jox ñu ne kon de su ma yeboo nekk coobare gi rek mu ne inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin mën naa am ñuy rafetal la koy neex de mën naa am ñuy rafetal la koy neex de kon da ngaa rafetal ba bëgg kon da ngaa rafetal ba ñu bëggee mën naa am ñuy rafetal la koy neex de waaw mu ngi mel ni ñu yàlla maye nawet loolu la ko baax a baax mooy maye nawet waaye ñaari ñi ñi bay la koy may de ñi bay ñaari daal yàlla may nawet ku ko neex waaye ñaari ki ki mu bayloo rek koy neex de loolu la ko baax a baax waaw ki mu xiif ci liggéey rek koy neex de waaw waaw <laughs> nga dégg ne di sangam bëri na dugub waaye jiwu doon sooba ah <laughs> da nga ko di dégg doo ko dégg waa ji doo ko dégg doo ko di dégg waaw <laughs> doo ko di dégg waaw gis nga ko ah. ah. waa hmm. tal tamit su sabab ba dañuy xam ne yàlla yërëme hmm. waaye buntu yi buntu yi ñu taxawloo buñ koy sàgganee hmm. te mooy bunti góorgóorlu bunti jéem a yokk te bañ a sukkandiku ci suñu hmm. ne yàlla na moo ñu yore moo ñu yokk loolu daal lu baax la waaw. waaw an yaxtassu bi rahmatihi man yashaa ku ko neex lay yërëm. Hmm. léegi nag boo korosantee kon na nekk coobare gi. mu hmm. war ne inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina kon xëy na ñuy rafetal la koy neex kon soo bëggee ci yërmande ji ah te nga bokk ci muhsinoona yi ah <laughs> dana ci baax de dana ci baax de de waaw ah, noonu lañ ko daan jàngee ci hikam de waaw. Ah. moo tax ne wëpp soo ko ay sakkiw banti araak law la besat buñ saxoon bi naamaanin ci naamaan pour naamaan suñ ko saxoon ne fa rek ne fa rek ne fa rek ne fa rek ne fa rek lamma rasafa duñu ñeeri bi bi axsal xar ci fa gën a sori ci xar bu soxra mun a hadin reewu waaye jongama jëraa jékkate ku ci ween gis nga ku baax a baax Cheikh Tidiane si dégg naa mu ne mu ne wal man dalu ratbu fii awtaanihi hatabu dégg naa muy ko wax dégg naa ko ci waxam mu ne wal man dalu ratbu fii awtaanihi hatabu ah xawma moo ko wéy xawma waaye man dégg naa ko ci moom mu wal man dalu ratbu fii awtaanihi hatabu ah man dal bantu gàtt bu foor a foor a foor la mu ne ca gajam ba mat rek la fa de dégg naa mu wax payo dégg naa ko ci waxam wax ba ca kanam mu wal man dalu rat bu fii awtaanihi hatta bu ci moom laa ko déggee naa mosuma wëji si téere mën naa am sax wéyam la nag ku mën a wéy la nag waaw ku mën a mën a wéy la nag waaw dina ko baax man dégg naa ko ci moom wax ba ca wal man dalu ratt bu fii awtaanihi hatta bu dina ko baax a baax waaw dina ko baax a baax donc mag ñi bëgg la ndax dafa am xam-xam moo tax nit ku am am xam-xam la lool sax nag lool waaw dëgg yàlla nit ku am xam-xam la lool mu ne euh, lu ñu teg wala bi fi asafihi ci sadafam lama ras lama rasafa duñu njeeri bi aqsal xar déedéet ah maa xal la du mu wàcc xal man sës mooy cadween xal matu sadi mooy cadween wala xal yéen bi muy takkaay lil xasaali ñaxal koj biir al asiyadi gudaa ji rafet ji doq wurus su fekkoon fa mooy nekk ci sadafam ci tabaxu suuf rek fa fa nekk jóge wu fa du am looroom bu darajay suuf si de waaw xelu baax a baax buy maanaam jàng ma di taamu teg ko ci dënnam génn ko ko may de ah génn ko ko may de ah nit bëri na looy gis mu am bu dul woon sabab lu ci góorgóorlu du ko am de ah loolu mooy tax ku bëgg dara dafay góorgóorlu de ah. kon wala wi taqarra bu saxoon ak durru wurus fi asdafi ci sadafam maa xàll du mu wàcc xàll yan mbir moom muy takkaay. lil xasaali ñaal koj biir ala jëli gudaaji rafet ji doq noonu lee la mu ne wal man dellu rattabu fii awtaanihi xatabu waaw dégg naa ko ci moom waaw na ko law wajada al farisata rabidan fil xiili lam yaxtal xadirata mosidi mu ne wallay su gaynde law wajada bu mënoon a am hmm. an farisata rawuñu fadd hmm. rabidan bi moom mu daa ji goor fil xili ci gol hmm. lam yaxsal du mu yongaan xadirata moosidin lakka lakkab aji teg li ñuy santaane génn aw fii génn aw fële yëngatu ci lii yëngatu ci lale luut coono mooy soxla du dox mooy soxla waaye àddina moo tëddeewut ñàkkaane ci dara tey doxal li nga war a doxal loolu moo tax waaye su ko tëddeewoon it kon faslante loxo bañ a def dara du doon xaay mu ne gaynde su ko koon mën naa am rabum faat da lekk ja kon bu waa bëgg lekk du ko jaral muy génn da toj gédd dafay toog rek ca golam ba bu ko defee da ca lekk rab waaye nag gannaaw mbir tëddeewut noonu bu soxlaa rab rek génn waaw àddina moo dul ne da ngay tëdd rek faslante say loxo li war a dex li war a dox de dox su ko doxoon faslante loxo du haay waaye nag gannaaw li war a dox taxaw nag dafa haay te nag lante loxo loolu lay jur il faut ñu xiire ci góorgóorlu nga xamee ci ne kon du sonal nit ñi lañ soxla waaye dundu bu lay lañ leen di bañal. wallay su gaynde law wajada bu mënoon a xam hmm. alfarisata rab wu ñu dàq hmm. rabitan mbir moom mu daaji goor fil xili ci gol hmm. gaynde su fekkoon fam goor ca gol ba mën na jaaxam rabu muy fadda de ko lekk lam yox lam yoxtal du mu yongaan xadirata moosidin lakkab aji tëj lu jar muy toog ba ab jëmmi jamono muy jog de tëj lakk dafa heenu béy muy jog de dox ci àll de dajeeg aw nag di ko fadd du ko doon jar waa dina loolu laaj wala wil fata yul fii bi ma waahul muna ma jawasat darba mruul qaysirati ndax du loolu xata staqa min ali qaysara sharbatan naqaat hasaahu fa baata xayra muwassati wala wil fata su fekkoon waay yul fii dana fekk almuna mébét bi ma waahu ci sax waayam ma jawasa du jéggi darba frontière ba umruul qaysi umruul qaysi arradi mara aji dee hatta saqa ba mu naan min ale qaysara ci ñun qaysar sarbatan naan naqaat ba mandal na asaahu baljatam wa baata mu fanaan xayra mu wasadin birom duma ku ñu gaganaayal su fekkoon toog nii ci sa dëkk jéemoo yëngat lenn dafay tax ay me ba sotti konoon imru ul qaysi bëgg a fayu baayam du ko tax a génne yaman da dem ba ruum da deexee xàlla waaw imru ul qaysi bayam hujru lañ koy wax ci buur yaman yi la bi nga xamee ne banu asadin rey nañ ko moom moom la bo moom lañ gemboon pour na fayu dereti bayam ci xissa bu xam ne xaju fi ba mu waajee ba hóolu dooleem ne dafay fayu ji dal ci banu kinaanata xeex ak ñoom xeex bu métti rey ci ñoom ñu bari doog a xam ne ndeke moom duut ñii ñoo ko tooñoon dana lépp ci kàttanam def na ko ci xare bi te dogu na ci fayu kon il faut waajaat lay def ci loolu na bàyyee ko yaman génn suufas arab yi dem ruum gisee kaysar pour na ko dimbale naam ba mu am doole mën a xeex ak Banu Asad ndax mu fayu dereti baayam jim tuur ji ñu tuur léegi mbir gaar na ci digganteem ak Kisra ak Kaysar ñii na nañ lii la ñii ne lale la waaye nag loolu ñun hitteeluñu waaye Kaysar daal jox na ko mbubu koŋ mu xam ne dañ koo tooke bi mu ko solee ci la yaramam defee góom ba mu dee ci àll bi su fekkoon xam doole xeex Banu Asad dàq leen daf di lu xam ne yaakaar na ko ci toog ndax àddina maye na ko kon da doon toog rek loolu xam mu dem def li mu bëgg waaye nag gis nga ko il faut rek mu jëfandikoo hitte loolu moo ko tax a dem ca Kaysar su ko defee góorgóorlu nag ak xam-xam man ngaa góorgóorlu ci lu sa sens nekk nga xam ko xam ko ci ndam man ngaa góorgóorlu ci lu sa sens nekkut nga ñàkk ko waaye doo ko ñàkk ci yeddaange loolu moo xam umrul xaysa lam doon góorgóorlu sansam nekku ca mel na ka ni sotti wut waaye kenn du ko yeddee nag bayeelu kenn du ko yeddee bayeelu moo tax ne wala wil fata su fekkoon yul bii dana fekk almuna mébat bi ma waaxu ci saxu waayam su toog nii rek bañ a yënga dara jiimoo dara day tax nit de sottal li mu war a sottal hmm. konoon maa jaawasa du jéggi hmm. a darba frontière ba hmm. umru ul qaysi umru ul qaysi arradi ma daa ji dee konoon umru ul qaysi ma dem ba qaysar muy deexee xàll ba ba ruum muy deexee xàll ndax soxla woon qaysar mën a xam doole pour xeex ak ba noo asadin loolu du ko ci doon fekk ma doon hatta saqa ba mu naan min aali qaysara ci min qaysar sharbatan naan naqaat boobu mandal na hasaahu baljatam fa baata mu fanaan xayra mu wasadin mbiroom duma kuñu gaganaayal lu ci tegu ولما تجسم في البحار صدائدا سيف يقطع هامة المتمرد حتى قرى الغربان غرب مهند واناخ في عرصاتهم بالنهاد كن جانجلول ولما تجسم نكون لتوغو صدائدا أي تتت fil bihaari ci géej yi sayfun sayfu nu siyasanin li yaqata ngir na mu dagg xaamatal mutamarridi kaa ngam boppam aji fetterlu hatta qara ba mu ganale alxir baana baaxaañi mooy waa xabas yu ñuul yi xarba muhannatin ñaw kaa jaasi ju ñu hindal waana xa mu yasal si arafaatihim ci seeni dingre bin wa di ànd ak way buur yi sayfu nu siyasanin yaman la dëkk waa habas dañ leen tegoon loxo colonisé leen xelif leen gannaaw gi mu ne loolu moom neexu ko xam na ne sax amul doole man da mucc ci toppe waaye na ko ku mat kilifa nag xelif mu daal di dem euh, ci Kisra ci kursu ne ko axaariba yi dañ ñoo not mu laaj ko ñenn la mu wax ko ko na ko ñun bañuñ ku ñu xelif waaye ku ñu yow de suñ kilifa moo ñu gënal dama bëggoon nga jox ma doole ma dem xeex ak ñoom génn leen su ko defee réew ne nekk ci sa loxo. Kisra dal di yëkkati alal may ko na ko foofu amul suuf si su fekkee man yóbbu naa fa xare ma tuur fa deret ju bëri faatal fa alal ju bëri teg loxo suuf si te suuf si intérêt bi bëriwul kon xeex boobu sama ngaañ rek lay doon. ba mu ko defee sayfu li ko buur bi may. bi mu génnee jaam ñi ci bunt bi de garde kenn la ko ci jox fekk propagande la te nag lu màggoon la nag buur may la dara nga génn da ko may kenn ci dagg yi ci bunt bi dayoon wàll lu disoon la lool tax na gaañi kalaame ko euh, Kisra Kisra dellu ko xoolu ne ko lu tax ngay maye hadiyatul malik mu ne ko lool taxu ma fay ñëw parce que loolu daj la rek te ñun ñoo leen ko ëppale mu ne ko comme loolu la demal déglu ma danga la dimbale te diisuwul kenn sayfu dem toog di dégloo moo ñu war a diisu wax leen mbiru sayfu ñu tere ko gis naa lam tontoon bu njëkk mooy tontu mu ne moom nag du ko kanal te dig mu ko dimbal daañu ne na dem ci kaso bi nga ubbi ko nekk ñoo xam ne baal leen ci leen tëjee waaye rey rek mu xëyoon ci ñoom ñun buñ fa dee yow sa benn wàññet du ko dox su ko defee boo ci jëlee mbooloo mu tolloo lu kii de soxla mm. mu yóbbu leen xeex ak ñoom suñ leen gañee yow du la gañ mm. suñ gañee it muy sa bénéfice mm-hmm. mu dem ubbi kaso ga génne ci lu mat ay junni nit mm. dadd leen teg ci juróom-ñetti gaal bu mm-hmm. ko defee am kum def ca bopp xare ba boole ko sayfu tagg mbaxanaam buur jox ko ne ko su ngeen demee ngeen gañe dangeen laajte kii kum da su dee kuñ xam ci réew ma kon ko am jam la ku bëgg dëkkam la gen fal ko ma ne ko buur su fekkee xamuñ ko fa ndax lay wut baal ci bi jàmbur ngeen rey ko saa ñu départ jaar ci géej gi ñaari gaal dal di suux juróom benn gaal yi dal di xàgg ñu dem xeex ak waa abas dàq leen dàq bu ñaaw a ñaaw laajte muy kuñ xam ci toog rek la loolu du am mm. waaye góorgóorlu mm. te sansam nekka mm. ba tax mu am ko te am wala wala maa tajasama nekkoon lu toggoo. el bihaari ci géej gi di pët ay wuure ak i coono. sakaa idan ay pët. sayfun sayfun mu siy yasanin. li yaqataa ngir na mu dagg. amatal mutamarridi. kaa ngam boppam aji fetterlu. xataa qara ba mu ganale alxirbaana wa habasi. daje nit ñu ñuul moo tax mu tuddee leen baaxañ. mu ganale leen xar ba mu hannadin ñëw kaag jaasi ju ñu hindal. naa jaasi nag bokkut ci ganale. waaye dañ leen ko dóor nag te dëkkuñ ko. xool nga dem te dëkkuñ fa ñu dàq leen loolu moom loolu la tuddee nga ne léegi daf leen di ñaawalaale waanaaxa te mu yeesal fiara satim ci seeni dingare binnu hadi ànd way buur ya lam talqa qawman humo sarrun li ixwatihim minna asiyata yajri bi damil waadi mu ne ñun niñ ci suñuy bokk ñun rek la bu xare jotee naqrihimo lahda miyatin naquddu biha ma kaana xaata alayhim kullu zarradi xam nga li leen di ganalee mooy ay jam-jami gunto yuy dagg seen i mbubu koŋ loolu leen di ganalee loolu la jëlee soit bi leen wala ma xadat min kulli fajjin dumarun xoosun li xayril li xayril alamina muhammadi salla alayhi llahu maanaam masaba bi bahaari matloli riyaadi muwarradi wala maa xadatte ni konoon du gaaw min kulli fajjin di tukkee ci wépp yoon dummaroon gëlëm yu de way xoos xoosun yu de way xóoti bët li xayril aalamina jëm ci ki gën ci mbindeef yi muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne su fekkoon toog nii rek mbir dajee sottee addina nangu na lool kon siyaare ji yonent bi soo ko bëgg a def dafay xam rek ci loolu nga nekk defaraan àll ka yendu àll ci loolu ngay nekk di xéeg a ko wàcc waaye àddina mooy kër gu xam ne mbir yi dafa mënul sottee ci ñàkk yëngatu mooy tax faw rek góorgóorlu am faw rek hitte am wala maa xadat te ko noon du gaaw min kulli fajjin tukkee ci wépp yoon dumbaroon gëlëm yu da way xoos xoosun yi dafay xooti bat li xayril aalamiina jëm ci ki gën ci mbindeef yi muhammadin muhammad salla yal na def salaatu alayhi ci moom allahu yàlla maanaam ma fekk tasaare na asaba galawu saba di bahaari mattalooli riyaadi bahaarab tooli dër yi ñu wis wisal mu war a dindi day ñu war daal yal na yàlla di def ci moom salaatu moom yonent bi ba faw loolu mooy li mu bëgg a wax mm-hmm. mu ne fee galawu sabaa mm-hmm. mu ngi jóg baar xëñ ak baar ak mm-hmm. xëñ di jolli ci kaw lu dër waaye fii faw rek la ba faw rek la di tegu ya imna fa dirra nasuwa lu di tegu ويسمن باليسارات خد الأجلد ويسمن ها بالملوات ها باللحظات كل مخيل لجتبو ويسمن بالسفينات كل مبلد da ngay wax mu continuer ak yow lay déglu lu ci tegu teen mm. ñoom ci doj yi mm. ndeguti kowe mm. jaar ak ñoom ci kekk yi ndeguti kowe wayasim na teñu seenoo bil lahadati ci gendeeku yi kulla muxayyalin bépp niir dàqaleen ronu xiin kowe wayasin na ñu ñu njamee bil yasarati ci seeni ndëggu mm-hmm. haddal ajladi la xam suusu daa ji dëgër mm-hmm. was mooy fin la mm-hmm. wayasin na ñi seenoo bil lahabati ci seeni genneeku kulla mu xayilin bépp niir saama yasiimu mooy fin la wayasim na te ñu mandargaale bi safinaati ci seeni hoom mooy boo leen yesalee lii ci suuf kulla muballadin bépp ak dëkk hmm. simatu mooy lisimam wasama mooy feelam hmm. waaye ayam na te ñu mar hmm. bil malawaati ci xàll yi ayam a dibaabiha marak mbëtti xàll yi waaye om na te ñu feey fii xamarate alim ci lëggi njuuno sayaatin lu daa ji tàng hmm. ma qad lawaahu kullu waxamin li daati muxalladi hmm. du doon wax ne bayil waru way hmm. wayasim na teñu fay min bayni sura ci botab rañaan maa li nga xam ne qad lawaahu yàggal na botam kullu wax min béppaa ji diis muxalladin këre kuñ belal wala këre kuñ jenguloo li daxaati jëm ci këre kuñ belal li daxaati jëm ci tayal forcel sa gëlëm yi pour ñu fay bari tukki yi nga xam ne ñu tayal leb nañ ko te fayuñ ko wala yéex nañ koy fay mooy na nga góorgóorlu nangoo sonn ba nga xam ne li doon war a rëqee ci càgganteeg ñu sàggan ñi sa góorgóorlu dana ko defar loolu mooy wax bi rek waaye sim na te ñu fay min benn sura ci botab rañaan maa lu xam ne xat la waafu yàggal na botam yéexee na fayam ku lu wax min bépp aji diis bu xal la din kare ku ñu belal li daati jëm ci tayal li teewoo وترقد بالجدد قداد نعائم وتحال في الوعس احتيال الخردي ترقد ñi gaaw بالجدد ci yoon wu neex fi qidaad naa'imin kem gaaw ak ay baax dàq leen boo àggee ci wu neex ñu daw ba mel ni baagu de rong wa taxaalu danañu daagu haale fil waxti ci beeñ ixtiyaal al qurrati kem daagu aleeg jongama suñu àggee ci beeñ nga bàyyi leen ñu dox ndànk mu ne bu àggee ci yoon wu neex daqal mu dox bu baax boo àggee ci beeñ bàyyil mu daagu ndànk ndax noonu lañ koy doxee noonu lañ noonu lañ noonu la lañ mooy gannaaw boo bëggee lu baax ba de ci yëngatu doo jëfandikoo sa xiirteeg bopp noonu rek mm. yëngatu ya dafa war a tegee ci yoon mooy mm. mel ni bëgg a dem rek mm. doo jëfandikoo sa xiirte ci dem loo sa waruwaay waaye dem loo ga dafa war a tegee ci yoon gis nga baax a baax waaw te ci misaal yow yaa ngee na loo xam ne romb nga ko noo gën a mën a xiiralee déglu ko rek mu xamal la njëriñ dafay mel ni yoon wu neex noo ci gën a gaawalee mu gën a sakkanal sa temps xam na loo xam ne gan la ci yow foog nga jël loo tolloo sa xel mi dog koy mën a rafetal mel ni beeñ rek boo ci bëgg a forcé sa gëlëm mu far ngiru du demati dana tar xaddu danañu gaaw fil jadadi ci yoon wu neex irqidaada naa imin kem gaaw ak baa ndax ca lay gën a sakkane mhm. wata xaalu danañu daago haale mhm. fil waxtu ci benn ixtiyaar al xurra di kem daago haale ay jongama mhm. ndax loolu la laaj lu ci tegu hatta taraha kal qisiyi majalaha aw taaruha aw kal xanaaya al hommadi wa tara banaatil aidi adha miqduha eedan li wahsin bil palaati muhayyidi hatta taraha ba nga gis leen kal xisi ñu mel ni ay xala ngelem yooyu nga yafal bañ suur war leen doxloo leen ba mel ni ay xala majaalaha nekk na ci seeni waruwaay mm. seeni wëndeluwaay mm. awtaaruha seeni watlu watlu mooy boo dee sox xala mm. su xee def perte gi daqal gëlëm yi bañ mel ni ay xala yoon yi mel ni ay watru aw kal xanaaya wala ñu mel ni ay xaniya mooy bant pour xala alhamma di rawee songong watara te nga gis banaatil xeedi doomi jigéeni xeedi kuyel gëlëm lu baaxoon la su gëlëm baaxee ñu naan naaqatun hediya adha mujj niqduha seen tojit heedan de heed li wax sin ñaal njaxal muhayyidin gudaaji heedu bil malati ci xàll bi nga dàq say gëlëm bañ dee ci xàll bi rafe xàll yi lekk leen mu ne kowe jar na ko waaw watara te nga gis banaatil xeeti doomi jigéeni xeeti mm-hmm. adha mujj nekk doha seen toji xeetan mm-hmm. te xeet li wax ñaal ay njaxal maa mm-hmm. yi dini di way xeetu bil malaati ci àll bi ñu jàng lool wala kam labistu dahra min suqaqil mala kal xirqi yubla fil mulaa'i wa yartadi ji tegu wa suraadiqi ufuqu samaa'i isaa sajaa arha kawaakibaha bi jafni musahadi fi madjaen aqsaahu gayra mudammasin wa diraawa nibtil qafri